asalaamaaleykum wa rahmatulah uh, maa ngi tudd Saliou Ngom alias Zos uh, uh, di kontaan si teewaay bi tey di kontaan aussi si seen accueil di santaat yàlla di juju Seydina Ahmad sallallahu di sant sunuy waajur di sant aussi Imam Mohamed Niass pourquoi dafa nekk nit boo xamante ne. c'est un monument très important ci ci l'islam wàllum l'islam parce que lii yëpp suñu rêve la mooy tabax juma tabax euh, école pour éducation boo xamante ne dafa jublu ci wàllum lislaam tey ñu mel ni imam Mohamed Niass dañ ci soxla ñu bari bari bari bari dafa woon bëri ay concurrents mais li ñuy ñaan rek mooy li mu def nii tey mu def ko ay centaine école ndax ñëpp mën ci gis seen bopp ndax fu mu nekk nii Almadies la nekk te ñi ñi ñu ngi koy réclamer fu nekk donc lañ ko soxla yeneen zones yi mu ñëw samp fa lu mel nii euh, ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla taxawal euh, man nag je suis nommé ambassadeur je suis lutteur sénégalais euh, tudd Zos sama tur dëgg muy Saliou Ngom mais le ministre de la santé et l'action sociale daf moo nommé ambassadeur don de sang don de sang dans le Sénégal 40 des morts chaque année ça à cause du manque de sang C'est ce koy indi mooy accident yi mooy ñi di am drépano yi metti yi ñi di def chaque mardi ñu ci des dañuy metti bu ñu amul deret donc mu un problème bu sensible Nous, le Sénégal chaque jour lu mu a, gàtt dinañu perdre 5 femmes accouchées te lu metti la partout dans le partout au Sénégal dinañu perdre lu mu gàtt gàtt cinq femmes accouchées ñi di accouché di yéeg ci ay saret ñu leen di yóbbu ñi di accouché ñi leen teg ci ay jakarta wax dëgg yàlla mën nga nekk ci luxe mais am na ñoom ñu ngi dund lu métti loolu moo tax tey avec le projet Djibril technologie bi ak programme RSE bi ñu am muy le projet Arena Blood sport et santé ñu waxtaan teg Imam Mohamed mu ne mooy incha allah dina ñuy dimbali Sénégal moom dina ci dugal loxoom dimbali Sénégal ba tax na tey ñu ni dootuñu dee ci ndax manqué deret ndax lu yomb la organisation mondiale de la santé wax muy OMS dañoo ne 1 pour cent de la population sénégalaise waxuñu la 5 pour cent waxuñu la 10 pour cent waxuñu la 50 pour cent waxuñu la 99 pour cent dañu ne 1 pour cent rek bu ñu mayee deret maanaam kenn dootul dee ndax manque de sang kon dañu war a sensibiliser sénégalais yi pour ñu xam lan mooy doonu sang yàlla sax balaa ngaa xam da nga koy balaa ngaa jaamu da koy xam. don sang mooy li nga xamante ne boo ko mayee nga maye sa der def ko àdduna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sauvé ci nit wala nga sauvé ci bébé koo ci mën a sauvé tey àdduna rasulullahi sallallahu alayhi wa mun nga ko ko def moo gën sax nga dem di rey dara di ko joxe àddiya boo dee jigéen chaque quatre mois war nga euh, boo dee góor chaque war nga maye déret boo dee jigéen chaque trois mois quatre mois war nga maye bëggu see règle mu nekk projet bu sensible boo xamante ne te dañoo ne léegi am nga droit lekk bala ngay may sa dret mën nga lek bu sour bu ñëk waron may waron euh may dret a lekkoo te te te doo lekk léegi da ngay lek bu sour may legi dañ na bo may dret ci ñetti waxti wi dret bu bes bu day commencé ñew moy indi ay globules rouge mo lay fex nga nga besat mu ngi melni auto bo dul vider kon ngay may dret dafa am bir wër gi yaram pa ci nek ba paré am jaamu yalla manam li ci nek ci ay ngeenel ken xamul lu mu tollu kon dañ ko wara sensibiliser ndax le 18 à 60 ans mo wara may dret donc kon kon boo amee 18 ans ba galaa ngeeg 60 war nga ci profité defalaal ca yaram sëfaat ci ni jàmmoo ci yàlla kon vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm loolu rek la ñu amoon lu leen présenté di aussi remercier waat imam Mohamed mu gën ñu taxaw rek comme papa comme kilifa comme lépp ba keroog ñi atteindre objectif banque de sang yi ñu war a tabax yëpp ñu tabax ko am ay drone am ay camion banque xoolal Sénégal lu mu rëy rëy amul benn camion banque de sang la am te dafa paan mu ngi CNTS. amul benn camion banque de santé imam ñu ngi ciy déglu sa loxo baax a baax nga dugal ci loxo ndax incha allah sénégalais yi day xaw a